lan ngay yëngu. man maa ngi ci xar yi ay xar laay jaay ak gileem quoi. Hmm. Hmm. situation xar yi ci ngamu bi. waaw problème courant da lañ am dara lu bees bi la ñu tuxul instant nii mais problème courant la ñu am quoi waaw. Hmm. problème courant la ñu amagum pour l'instant nii quoi. ñaata xar nga indi est-ce que ñi ngi jël. waaw indi naa indi naa ñaari camion indi naa ñaari camion mais gane ñëwaguñ génn suñu génn seeguñu quoi waaw génn seeguñu. xam naa tey ak suba incha allah mun naa bu burd bi arrêté rek gars yi dañ génn allah quoi waaw incha allah rabbi waaw waaw pour ñëw jënd si ko affaire yi yomb na nag seerul de waaw wàññi nañ affaire yi bu baax a baax mhm. waaw ça dépend ndax kii maa ngi ko jaayee trente deux mille trente deux mille laa ko jaayee xar yi trente deux mille cinq cent trente deux mille cinq laa ko jaayee xar yi mhm. waaw nag yi maa ngi ko jaayee deux cent mille quoi deux cent mille waaw waaw te jaatu na quoi période normal la quoi. Mhm. boo leen xar yi fii doo la am problème pour ay taxe avec mairie bi yi ngeen di. non pour le moment moom amuñu taxe quoi amuñu benn problème wax dëgg fa yàlla problème courant daal la ñu am instant yii nii ci daal bees bi. Mhm. waaw wax ngeen ko ñu ngeen ko war a waxal pour ñu indi leen. waaw suñu njiit wax na wax na mais instant yii maa ngi gis tey suba sax ñu ngi di poste affaire courant yi quoi ni ñu koy taxawlee ci biir daral beeg yow noonu gaan xam naa ne fekk suba incha allah mun naa lépp mun naa taxaw ko sëñ Cheikh Mbacke Cheikh Mbacke Cheikh Mbacke Faye waaw. Euh, yéen a ngi fi ñuy fii si Tivaouane yéen da ngeen am opération gàmm quoi waaw man maa ngi Tivaouane quoi taalibe Serigne Touba laa nag mais sëñ Babacar si dafa neex quoi. waaw maa ngi wàcc maa si daral Tivaouane bi jugee jugee Bambey Séeréer indi ay nag ay xar mais problème boo xam ne dañ ko am quoi am nañ euh, amuñu courant amuñu ndox ndox bi sax moo ñu gën a manqué ndax jur bi bu ñu ñëwee ah, ripaas bi indi duñ mën a lekk ndax boo amul ndox. bu ñu soxla nag ñu gaa yi defal ñu ndox pour xar yi mun mun di naan quoi waaw loolu mooy suñu defa quoi waaw. non y a pas de ñu ngi jaay mais yi ñëwaguñ quoi yàlla baax na xëy na bu clients yi ñëwee rek xarit nañ euh, xarit nañ. ñaata xar nga indi. man ñetti camion xar laa indi ñaari xar benn bi euh, benn bi nag la quoi mais ñaar ñaari ñaari camion xar la waaw. prix yi mbaa njóg yi seerul noonu. sax dafa passé gàmm moom du ñu def jaay prix yoo xam ne pour am lu bëri. dañuy jaay pour euh, gàmmu ji quoi ndax gàmmu ji gu guddi bi la dañuy def euh, euh, dañuy def te yàlla tax quoi waaw mais ñu ngi yàlla baax nag